Anyways.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 jàppante jàppante bu metti ba jëkkëru ndaw si cor ko ay jaasi dagg ñaari baaraam ya gaañ ko ci loxo ak ci bopp le 16 juillet bi weesu la mbir mi xew ca village bu ñu naan lollo nekk ca commune bu gasaan ca Linguère akaa ji jëkkëru ndaw si dafa soupçonné jabaram na mu ngi koy séq ak keneen naka noonu ci la décidé jëflante koog waa ji ji ci àll ba comme ñoom ñaar ñëpp ay sàmmkat lañ daa di ko bett attaqué ko gor ñeenti yoon jaasi daa ko lay bàyyi ci béréb bi deret ji sang ko ne tappit ñaari baaraam ya gaañ ko ci loxo ak ci bopp bi loolu amee nag ci la beneen sàmmkat dal di gisee victime bi dal di daw yëgali ko famiyam naka noon nag ci lañu ñu ñëw évacuer ko ci l'hôpital bu Linguère mujj ko jàllale ca Touba gannaaw mbir moomu nag bi mu amee ay fan ci la victime bi ut certificat médical daal di porte plainte ca brigade bu Linguère ci la ñu arrêté aka di jëkkëru ndaw si bi ñu koy lanket nag assumé tekki ne li tax mu def li mu def mooy est-ce que da doon raasaatu jabaram di ko def nag ci kanamu àdduna bi yépp ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi jabar ji kër ay way juram la nekkoon ca loolu waaye nee na bës la ñëw ca këram seet si ko te yëgalu koko nee na gannaaw bu ñu tëddee ba ay xaaja guddi am benn waaju dugg ci biir néeg bi nee na naka noonu ci la jógee nit ak torsam waa ji dal di ne fëx daw ay waay waay ne bi mu laajee jabaram lu waa doon def ci néeg bi far gi di ko lakki daada <laughs> dem leen ci seen néegu sëy jëkkër ji nee na waxul dara waaye nee na yoolu tamit lendemain korité waa ji dafa dellu si waat ci ay booru deux heures du matin <laughs> waaye yéen kii du bàyyi jabaru jàmbur nee mu jogaat nit ko torsam waa ji déclenché ko jaasi ci la jógee pour song ko waa ji daw jëkkëru ndaw si mooy wax de nee na gannaaw waa ji li mu def loolu yépp terewul muy wër dëkk bi naan moom ci boppam ñemewu ko attaqué moo tax mu kar ko ci àll ba fu ñoom ñaar rekk nekk dal di koy jëflante ak moom <laughs> ma ne dal jabaru jàmbur ku ko ci bàyyiwul sa bakkan nañ ci xottu gerte moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Ziguinchor doy na war ab jakarta man daal moo fa violé jarbaatam bu am fukki at ak ba mu jëlee ci ëmb subhanallah waa ji mu ngi woo ci turu am Camara at yi toll ci ñaar fukk ak juróom benn dëkk ca quartier Belfort moom daal le sœuram accusé ne moo violé doomam ba ëmb jëmbal ko waay waay waay waay waay mim réew sœur bi ne doomam daa feebar mu yóbbu ko hôpital bi mu ko yóbbu hôpital surprise bu rëy la ca jëlee ndax médecin bi bi mu xoolee xale bi daf ne ko xale bi dafa ëmb wop wop bi loolu amee nag sœur bi ci la plainte frère bi xale bu jigéen bi nag bi ñu ko woyee di ko laaj nee na nijaay ji moo ko violé ba noppi tal di koy menacé de mor ne ko boo ko waxee dinaa taxale sa bopp ak sa baat naka noonu nee na ci la noppee nijaay ji nag bi ñu ko arrêté daa weddi lu ni mel ba tëdd ci naaj bi waaye ca mujjantal ga daal mujj naa nangu ne seq naag jarbaatam waaye violé wu ko ëmbalu ko yaa moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax kii nag ab jaaykatu portable la nekk fële ca Colobane di woo ci turu M6 at yi toll ci ñaar fu at ak ñaar moom daal ak xaritam buy dawal sareet moo roñ ay portable am sàcc ko valeur yi toll ci quinze millions naka noonu ci la sa waay porté xarit bi ca commissariat bu Géejawaay sa waay bi mu yóbboo plainte bi ci lañ ko laajee ana facture yi portable bi ni ko laajee facture portable yi génn police bi ne fox daw la def laa wax gaa ya topp ko ba ne ko niip ma ne nag de lii mooy tës xanaa nag mooy ab sàcc bu ñu sàcc mu porte plainte sàcc bi ba sàccam dugal ko mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz